UCAB FM li gën a fës ci yéene Papa Saer Mbaye bis simil lu soxal ñetteelu mandat président Macky Sall daanaka yénn kaay yu bëri moom la xëy kenn ku ci ne ak ah, la nga ca nekk sunu naataangoo yu bëri bokk na eh, xel lool ci li nga xam ne kon moom moo di Sénégal ak jongante yi ñu xam ne kon ñu bëri nag ña ngay bëgg njiitu tax ñi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew ñoom ni ko tey ji yëkkati nañ seen ay kàddu lanu bëgg rek mooy lu jëm ci wàllu yi nañ leen ci gindi leeral leen ci président Macky Sall mi nga xam jamono ji moo jiitu réewum Sénégal ñuy waajal jongante yi ñoo xëy ba tey di ci dellusiwaat moom président Macky lu jëm ci wàllu ko mandat bi nga xam ne kon moom lëgg bu sukkandikoo ci yénn kaay bi di Emmanuel Macron di njiitu réewum France la mu bëgg rek mooy président Macky Sall ca ginnaaw bu mu samp ndëndam ba tey yénn kaay bi ne waa Paris dong ñoo bëgg lu mel Washington doon Amérique ñoom itam loolee mooy lañ ci fësal enquête moo ñu koy nettali ba tey yénn kaay bi di xam la ñu kon moom moo di njiitu réew mi président Macky Sall a doon na loo xam kon ab taxawaay bu ñu bëri ña ko cay nemmeeku yéeni kaay bi ne kay jamono ji njiitu réew président Macky Sall doon na koo xam kon ñu ngi koy bàyyi xel ci wàllu ko biti réew France ak Amérique ñoom benn gis-gis la noom Walfadjri quotidien ne kay jamono ji waa bitim réew kay ña ngay jox kii di njiitu réew président Macky Sall seen gis-gis bi xam ne kon bëri na coow lu ci biir réew mi loole nag la ñu bëgg ñu bañ cee dugg ci li nga xam ne kon moom moo di fitna joojee ba tey kii di njiitu réew président Macky Sall Walfadjri quotidien moo xëy di xam ne ne ginnaaw ñaxtu yu métti yi nga xam ne kon gis nañu ko ci biir réew mi ci wàllu ñetteelu mandat bi nga xam ne kon ñu bari seen xel tee na ca lool waa bitim réew nag dugg na ci mbir mi France France ak Amérique ñoo ca njëkk a feeñal seenub yéene lanu bëgg rek mooy ñoom ñaari kilifa yi lii di njiitu président Macky Sall mu bañ a dugg rek si ñettal mandat Le Soleil yéene kaay bi nga xam ne ab ngan la fa doon amal moom président Macky Sall yéene kaay bi di Le Soleil di xam le rek ne lu bëri loo xam ne kon jot na ko faa liggéey ba sax am na leen loo xam ne kon jot na ko faa dalloo yéene kaay bi xëy di xam le ne ci tournée économique bu doon na ko def rawatina foofee ca département bu Goudomp foofee nag moom kii di njiitu ay liggéey yoo xam ne kon fàtte na fa tam bokk na ci nag lu jëm ci wàllu loolu ñuy wooye rive gauche ci pakaaw waaye na ci wàllu ko yeesal leen ci taax yi fa ba tey di xam le ne kon jot na ko faa taxaw ba tey yéen kaay bi di xam le ne lu jëm ci wàllu ko ndaw yoo xam ne kon bëgg na leen a jël ci wàllum xëy mi gën a rek leen a jàppale téeméer ci ay yoo xam ne kon yéen kaay bi moo xëy di xam le rek ne jamono ji taxaw nañ tam ngir gën leen a mën a taxaw ba tey yéen yéenekaay bi di xamle rek ne moom ki nga xam ne kon moom moo di njiitu réew mi président Macky Sall ngay woote ñii di waa MFDC doon way fépp ya a bi xëy di xamal ne jamono ji kay moom njiitu réew mi a na loxob jàmm ji di waa MFDC doon mbootaay gi nga xam kon moo lëkkale way fi municipaux yi nekk foofu ca Casamance moom président Macky di xam le rek ne ci wàll ko bi nga xam ne kon moom lañ def kenn ku ci nekk war ngaa mën a dugal sa loxo ci li nga xam ne kon moom moo di jàmmi réew mi liggéey ci rive gauche bu ah, ca la yëkkate ay kaddu di woo ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di waa MFDC doon kuréelu nekk ca Casamance ngir ñu wéer ngànnaay yi jàmm mën a del si vox populi yéene kaay ba tey sax ci wooteeb jàmm jooje njiitu réew président Macky Sall di woo waa MFDC ca la des ne nag la mu bëgg rek mooy ngànnaay yi moom nanu ko wéer te nag waxtaan ngir jàmm leen loo xam ne kon soxal na wàllu wér gu bi le quotidien yéen kaay moom nag ma ngay artu ci leen loo xam ne kon mooy jàngoroy ngaana ji nga xam ne kon gis nañu ko muy feeñaat ci biir réewum Sénégal ne nag lu toll si téeméer ak juróom fukk ñeent ñoo xam ne kon ci atum 2022 ak léegi gis nañ ko fi yéen kaay bi xëy di xamal nag ne jamono ji am na si ñenn yoo xam ne kon toll na ci téeméer ak juróom fukk yoo xam ne kon gis nañu ko fi yéen kaay bi ne nag loole doon na loo xam ne kon lu jaral tiit la ci biir réewum Sénégal jàngoroy ngaana ji nga xam ne ko gis nañu ko ci laas yéen kaay ba tey ci la ne sunu naat naataango yi xëy rek di xam ne ni loole ab jafe-jafe dëggantaan lañu ci jot di ba tey yéenekaay bi ma nga rek ci wàllu ko jafe yi nga xam ne kon dund nañu ko ci wàllu ko wér gi yaram si du quotidien yéenekaay moom la ko jaaxal bokk na nag ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko lii ñuy jële ci géej gi doon jën yeeg ñoom seen yéenekaay bi nekkee fi mu toll nii lu jëm ci wàllu ko napp gi ay jafe-jafe dëggantaan lañu mu toll nii ci biir réew Sénégal ba tax nag ñi nga xam ko ñooy yëngu ci wàllu wi lañu bëgg rek mooy lañ leen gën a taxaw yéenekaay bi ne nag loole lu jaara bàyyi xel la leew naña seen la ñuy dem dëkk bu tedd ba nekk foofu ci Kaolack yéen kaay bi xëy di xamal eh, di Ousmane Sonko moom nag ci ay eh, na ko def ci njabootu Khalifa Niassène bi loolu eh, kaay bi ne nag loolee lu jar a bàyyi xel la ba tey leneen loo xam ne yéen kaay bi nekk ci xëy di xamal ne jamono nga xam ne kon moom mooy fitna ju nemmeeku nanu ko ci art ci quartier alom ga nekk ci Touba yéen kaay bi xëy di xamal rek ne benn ko defkatu ñaawteef doon koo xam ne kon alali jàmbur la doon jël moom nag ab bal ko dóor mu yem fa Dakar ak moo ñu koy nettali mbokk yi ne kaay a jëlëk inchaallah UCAB FM li gën a